alors image bi ngeen gis benn vidéo la buy wane nit boo xamante ni arme bii mu yore xëy na du ñàkk am na ñu ko gis sax mais lii arme de guerre la waaw mu wóor ni kii li ko tax a jóg moom du manifester leer na parce que kii arme bii mu yor ñii nga xamante ni sax dañuy nekk ci maintien de du ñu yor arme bu ni mel ñu nekk ci zone de guerre ñoo koy yore donc lii benn la ci firnde yi wane ni naam am na ñoo xamante ni dañuy manifester parce que dafa am lu leen tax a jóg mais am na ñu ci rax ñoo xamante ni euh, leneen moo leen tax a jóg li olof di wax am na ñuy gàmmu mais am na ñoo xamante ni dañuy raas dem donc loolu mooy première image beneen image lii beneen image la boo xamante ni moom it day wane nit koo xamante ni mu ngi yor li ñuy woowee pistolet automatique PA mais ki koy tiire bu ngeen ko xoolee xam ni kii miinul arme bi mu yor parce que ni muy tiiree nga xam ni kii xëy na yor na arme bi mais euh, miinul li muy def loolu nag li ci mën a judd mooy incident ak euh, mën na ci lor ku nekk parce que li muy def moom ci boppam maîtriser wu ko mën na ci gaañ boppam rawatina nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay ay manifestant beneen vidéo beneen bi également day wane koo xamante ni moom it arme de guerre la yore te arme bi mu yor kii ni muy tiire wuute na ak ki nga xamante ni moo doon tiire sànq ndax kii professionnel la li muy tiire daf ko xam maîtriser na arme bi xam na li muy def te kii ku ko xool xam ni manifester taxu ko jóg waaw ñu gis ko nii mu yor arme jàkkaarloo ak force de défense et de sécurité yi lii beneen vidéo la moom it buy wane également nit bu yore arme di dóor sans pour autant ñeneen ñi di gis ni mu ngi dóor ndax daf koy dóor rek dugalaat ko ci tegaat ko ci ci pooj bi donc loolu lépp day day firndeel rek ni am na ñuy manifester naam mais am na ñoo xamante ni li leen tax a jóg di manifester loolu nag day interpole ñi nga xamante ni ñoom manifester rek moo leen tax a jóg ñu xam ni ci biir firndeel sa Euh, opinion sa bakkan xaj na ci ndax ñi nga xamante ni ñoo ci rax te leneen tax leen a jóg ñoom bu seen pexe sottee mooy dinañ def ay dégâts maanaam dinañ tiire ci population bi te liñ ci jublu rek mooy fexe ba ñu jiiñ ni FDS yi ñoo ko def FDS yi encore une fois muy les force de défense et de sécurité population bi du seen ay ennemis nous sommes là pour la population li ñu nga xamante ni mooy suñu liggéey nekk suñuy mission de tous les jours mooy fexe narkan la su euh, population bi di nekkee ci jàmm naka la ñuy mën a vaquer à leur occupation naka la ñuy fexee ba fànq lépp loo xamante ni jug na ngir gàllankoor seen ay activités. Au commissariat aux droits de l'homme de l'ONU s'est déclaré profondément préoccupé par la situation dans votre pays et a ajouté que l'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité lors des manifestations constituait un sombre précédent pour le Sénégal. Est-ce que vous entendez cette grave mise en cause Est-ce que vous la prenez au sérieux et il a tort. Il a raison quand il dit que ça peut être un sombre précédent. Vous savez pourquoi Parce que le Sénégal est un pays respectueux des droits de l'homme. Parce que personne, ni lui, encore nous en premier, n'a jamais souhaité qu'au Sénégal, on puisse utiliser des balles réelles pour tirer sur des, sur des manifestants. Mais quand les forces de l'ordre, comme je l'ai dit, elles sont agressées, quand elles-mêmes, elles sont victimes de la violence, quand elles sont en état de légitime défense, que doivent-elles faire Voilà, Il n'y aura la, pas de sanction la, contre voilà, les forces voilà de l'ordre qui mais ont tiré bien à sûr, est, bien sûr qu'on est en train d'enquêter, euh, Monsieur Boisbouvier. Bien sûr que quand le juge verra que le manifestant ou même le, le, la force de l'ordre en face a tiré parce qu'il était en état de légitime défense, que va faire le juge